mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi leen di ndokkeel di nuyu mu ngeen may ma rek ma tàmbalee ci sama xarit son excellence ci Paul Badji mi nga xam ne pour ñun tey dafi am deux casquettes yi la fi toog la fi toogee benn bi dafa toogal état Sénégal wante dafa toogal Afrique yëpp bi ci des te koo xam ci diplomatie xam ne mi euh, exemple la ci loolu ñi nekk ci diplomate xam nañ ko mais beneen bi nga xam ne tey dafa ko am nga xam ne moom rek moom laa ko xam ci ko ko am moo représenté dialogue interreligieux euh, islamo yi toogaayam fii tey firiwul ne rek dafa nekk euh, Paul Badji nekk ambassadeur mais dafa représenté ni diine muy téere yi nga xam ne moom la yàlla wàcce téere yi muy tawraat ak l'évangile ak alxuraan amu ci benn diine boo xam ne dafa wax lu dul jàmm ak ànd kon tey su ko chrétien suñ ko gisee fii war nañu xam ne moom pilier la ci loolu parce que jotaayam bi fii tey firiwul rek Sénégal wante dafa firi loolu ndax sunu toogaay bii tey li mu ko waxee ak li nga ko waxee moom la ko sàmm waxee représenté ñi ngi xam na ñoo yore communauté bi du Sénégal rek wante du Afrique rek waaye àddina bi yëpp la ci wàllu diine l'islam dafa toll foo xam ne jam-jam yi bari na lool te lii ñu def tey def nañ ko ñaar fukki at ak juróom benn États-Unis New York boo xam ne proclamation officielle la ñu di ko fa def di fa def ay marche su ngoonee ñu dem Nations Unies ci ci salle yu gën a am solo def ay conférence diine comme diine amul frontière mais mbubb mi nga xam ne moom la nit ki di sol yor ko bu dee mbubb buy tàkk fu mu jub ñu baaree ko mais bu dee mbubb bu weex nag mën na ko duggi ak fu nekk kon diine amul problème wante nit ki mooy am problème Amérique buñ ko dee wax dëkk la boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci léppam ci àdduna waaye réew la boo xam ne kenn du leen influence kenn du leen manipuler suñu demee ba Los Angeles New York Washington ak dëkk yooyu am proclamation officielle yu bind joxe ko bisu diine bésu lislaam ñu di ko fa def te loolu yàgg lool kon suñ ko defee Paris ci fii nga xam ne fi la ñu defoot fi la ñu ñoom ñoo colonisé woon senegal E- exilé Cheikh Amadou Bamba kon tey xam nañ ne jàmm jooju Cheikh Amadou Bamba doon wax inni ujahidu bil ulami wa bi tuqa abdul xadiman wal muhaymin moom nee na woon jihaadam mooy xam-xam ak ragal yàlla loolu la ñuy waxe jihaad ñun loolu lañ koy firee ñun mais du xeex ak def ci taali këri jàmbur taal ay pomb ñun xamuñu loolu te itam waxoon lu doy waar biñ ko tooñee fu nañu dugal ko fa afawtu anil aday foofu lan di wañ si man nafaa nafaahum li xayri sarmadan lastu adfaw may wax ne lastu adfaw toujours man ma di ko firi ni moom moo ma ci gën a yéem ci woy bi ndax nee na jéggal nañ ñëpp wante du ma défendre xam nga défense moom defe naa légitime défense ñëpp xam nañ ko ci euh, wàllu nit droit kon moom nee na du ko sax def ndax défense boobu nee na da ciy bañ li ci militaire di def la l'attaque c'est la meilleure façon de se défendre léeg-léeg boo boo défendre mën ngaa dem sax nga jàllaale fu ëpp loolu lay bañ kon kooku yàgg naa xeex loolu te bi muy wax lii booba ak léegi ëpp na sekk kon moo ci jiitu ñu bari ñu ngi ciy tey kon bu ñu xeeb suñu bopp ci lii moo tax communauté bi fi nekk ak jullit yi fi nekk ak Afrique ak ñi fi nekk nit ñi fi nekk na ngeen gëm ne jàmm jàpp leen ne yéen a ko war a mën a indi ci àdduna parce que bu leen jaawalee diine ak culture moom laay wax toujours bokkul am na ñoo xam ne seen culture violence la am na ñoo xam ne seen culture désordre la mais ñun nañu am discipline ak ak jàmm ak liggéey suñu ko defee àdduna bi da donte buñ jàpp ne tuuti nañ ci àdduna bi parce que tuuti du du ab lim du couleur du alal wante tuuti ci comportement la doon la nekk kon nañu gëm loolu te àndal def liggéey kon bés bii tey ñu jàpp ni jullit yëpp ko bokk nit yi diine yëpp ko bokk ni mel couleur bi nga xam ne am na ko tamit dama di ko répété rek mooy couleur bi nga xam ne excellence yaa ko couleur loolu muy sa réew nga fi teewal muy Sénégal nga bat ko sëkk wante teewal nga fi loo xam ne tamit ñëpp xam nañ ne tey diine amul benn diine boo xam ne ci téere yi yàlla wàccee nga xam ne diine yooyu yàlla moo ko moo wàccee ay téere ci ñoom wax nga lenn ci loo xam ne dafa jëm ci lu bon wala nga jëm ci lu bon wala luy lor nit lépp jàmm la woote kon tey àddina bi nañu xam ne euh, li la li mu laaj mooy jéem a nekk ci àddina bi ci jàmm waaye diine yàlla nee na forcé wu ci kenn la ikra fi kon nañu gën a góor góorlu def lii fexe ba nekk ay exemple fu ñu nekk ñu jàpp ne ay royukaay la ñu doon waaye duñ nekk ay ñoo xam ne dañu topp ci ay nit rek te nekk ci dëgg nekk ci jàmm nekk ci liggéey nekk fu ñu nekk itam def wax la nga xam ne moo fa moom la yoon sàmmoon euh, warlu kon ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm quand même euh, gouvernement français parce que lii tamit xëy na ñu bari ñi ngi def ay manifestation yu dul jeex mais bii li ci biir eh, defe naa ne bariwul kon nag ñi ngi gërëm ñi ñu ko permettre te xam ne yàgg nañ ko def ci àdduna bi ñi ngi koy def Amérique di ko def euh, Italie te lépp état yi ñoo ci ñoo ci ñoo juboo xam nañ ne kon néewuñu doole wante nit ki ay valeur mooy tax mu mu kawe wante du ay matériel wala du ay moyen maa ngi yéemu bu baax ci sa benn wax ba waxoon taaw parce que da ne woon ñi xàmmeewuñu mandia ak millionnaire baat boo xam ne bu dugg la parce que ñaari baat la yoo xam ne defe naa ne sëriñ moo ko war a utiliser moo ko waroon a wax bañ a xàmmee matériel ba nga xam ne dana tax la nga sa mission nga fàtte ko bañ koo jaawale ak ki nga xam ne dafa néew doole ba nga xam ne boo ko séenee da ngay doo yaakaar ci moom dara nga bañ koo xàmmee ki nga xam ne soo ko séenee mu wóor na dem mi ngi yore ay milliards loolu gidd ak ci moo tax may wax toujours ne sëriñ responsabilité mais du pouvoir kon nañu gën a góorgóorlu fexe ba lépp loo xam ne dafay doxal ak yéen ñi nga xam ne yéen a encadré loolu wala yéen ko géré sax parce que lii yéen a ko def yéen communauté bi yéen a fexe ba am fi jàmm am fi doxin boo xam ne dana mën a permettre may na leen ngeen mën fee feeñal seen diine te kenn du leen ci wax dara loolu na ngeen ci continuer kon ñi ngi gërëm président euh, Ibrahima Diop ak mboolem daayira yi nga xam ak mboolem ñi nga xam ne ñëw nañ fi jóge ci ay dëkk ak mboolem sénégalais yi ak mboolem africains yi ak mboolem ñi nga xam ne teew nañ fi jërë ngeen jëf merci beaucoup. yàlla nga fi yàgg nag Mbacke. yaa sagal Serigne Touba yaa sagal Serigne Touba yàlla nga fi yàgg nag. comme temps bi jeex na moom comme vous le savez donc euh, le cheikh il va formuler des prières et puis. Euh, voilà léegi mbooloo mi dañ di ñaan bu sëriñ bi defee ñaan ba pare dans le calme la discipline ngeen bàyyi ka rek mu ci leen ñu dem ndànk comme ni mu ko waxee ku nekk xam na ni at ku nekk chaque année il rappelle ce que c'est l'islam la paix la tolérance et surtout surtout le comportement il revient chaque fois dessus donc il faut qu'on soit des modèles wax na ko léegi également donc nañ ko wane ambassadeur léegi wax na ni euh, le Cheikh c'est son ami mais léegi complice la il a dit que ce ne sera pas des paroles ce sera des donc aussi nous il faut qu'on euh, montre ces actes là bu sëriñ bi ñaanee ba pare nanu ànd ak dal mu dem nank dugg ci oto ñun tamit ñu ñibbi nank muy lu nu wane salaamaaleykum ca saal ba nag lañ jëm incha allah directement amin yaa آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين Les activités se terminent à 1h du matin à la salle. Donc là, ça va démarrer tout de suite à 18h30 jusqu'à